bon match moom li ma gis mooy maanaam Aliou Cissé dafa def benn erreur quoi parce que Krépin da ko waroon teel a génne Iliman dafa dugg rek match bi changé waaw ñu daal problème Aliou Cissé la ñu am bu Aliou Cissé bi moom ñu ngi baax moom waaw loolu daal mooy seen problème. match bi seetaan nañ ko match bi gis nañ ni niñ débuté nii baax na di ñaan yàlla yeneen match yi ci des bu ñëwee ñu defaat comme lu gën a gën a motivé wu rek waaw loolu la rek. waaw match bi moom naa si waaw comme ni mu demee rek. match bi moom bon pour man beetul kenn quoi parce que favori bi tamit ñëw na wane na boppam quoi en fait. waaw li ñu gisagul instant bi ni moom dal na xel waaw même que Gambie nag nekkul équipe boo xamante ni sax buñ jàpp ni bu kii la mais li li ñu gis daal instant bi dal na xel quoi. ah mais loolu moo am Gambie équipe bu ndaw la gisoo tey bon première ñu départ sax da lay wan ne Gambie équipe bu ndaw la parce que trois défense lañ teg suma juumul donc loolu moo lay wan ne ndaw la te joueurs yi doon xaar yu bëri sax deuxième mi-temps lañ dugg non onze départ moom Krépin warul woon jàll Krépin dafa waroon xaar tey moom te teew Iliman Ndiaye moo waroon teel a parti Krépin moom dafa war a xaar xam naa dañuy xaaraat bi di ñëwaat mu xool ndax am dina defaat beneen changement ou pas waaw mais tey moom xaw nañu kontaan tuuti rek mais Gambey waroon nañu ko dóor 4 4 lañ ko waroon a yéen moom waaw. ñu naan la Sénégalais yi nag ay si des na lu bari lu bëri des na lu gërëb des lu bëri des na moom dañu war a xoolaat bu baax a baax a baax surtout côté Krépin euh, Diatta côté boobu moom dañu ko war a xoolaat bu baax te moom warul parte moom man foot boobu rek laa gis ah mais bu dee weesoo loolu moom da seet moom mi ngi baax. si am nañ ci yaakaar bu baax moom am nañ ci yaakaar bu baax ni dinañ jël dinañ jël affaire bi moom yaakaar moom am nañ ci moom xanaa dañuy ñaan rek ba yaakaar bañ a tas. li yooyu moom bon comme premier match ni demee rek affaire moom boo ci nekkee sëgg rek jàpp rek dóor équipe boo tee dóoral 3 4 loolu rek laa leen di wax quoi. lob di match euh, kii nu mu tuddati euh, Camara bi. damay fàtte sax <laughs> Lamine Camara waay match bi waaw wane na boppam daal. kook moom kooku moom dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat rek waaw dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat xam nañ am nañ yaakaar bu baax dina yóbbu équipe nationale ci lu kawe kawe kawe kawe yooyu am nañ bu baax a baax a baax. Ah, Sénégal ñuy bañ a ñu bañ a nekk hypocrite rek ñu bañ a yàq suuf rek te bàyyi sa waay yéexal di neexal affaire yi te incha allah ñu def ñaan yàlla may ñu ndam parce que ñëpp ndam lañ bëgg dañ ñaan yàlla yàlla may ndam te ndam loolu ñu jëkk soobee yàlla incha allah. jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan Sénégo TV sénégo.com mu nekkoon micro trottoir bu am solo bi ñu leen defal fii ci New York Harlem euh, gannaaw mat Sénégal Gambie Sénégal mujjee ganne ñetti bal ci dara euh, mu nekkoon seen reporter Seydina Aliou Ndiaye New York Sénégo TV.